يشاء وهو رقي النفس حقا والدعاء المستجاب حب طه يستطاب حبنا لك الجناب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Now you can listen to our Fakir Muhammad Saha Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsaha.com, by dialing your phone at 401 347 07 841. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Oh, oh, oh,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 sëriñ Mansour Abbas Sall macha allah ak suñu mbokk yu baax ci biir New York maa ngi seen Mouhamadul Fadil suñu suñu sang suñu doomu sang di suñu rakk ca Brésil maa ngi gisi tamit soxna Binte Jaag ca dëkk ba na mu ci Texas Dallas waaleykum salaam soxna mari Sister Mary Williams kii du soxna Marie Niang macha allah bu excellence tabarakallahu ak sëriñ baabu bu bu allah macha allah euh, sëriñ Mohamed Gaye tabarakallah xam naa ñu ñëwaat ci nuyoo yi kanam bi idnillahi tabaraka wa dafa mel na ñu ngi ànd ak rek di bégee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd al imaamul Busiri damay wax ni eh, Cheikh na Tidiane yi diggee ci tariqaam yépp donte wëlli yu yi ko jiitu yépp sax ci tariqaam alal xaqiqati ci lañ nekk eh, mën nañ ci dugal imaamul Busiri ndax fi mu ko tegoon ëpp na te inaaya bi yonent am ci Busiri rekk a tax Busiri nag li ma benn mbokk ca rawdatu Cheikh Tidiane yi waxoon ni ma xamal lu ma yonant bi gannaaw alquran mucjisa bu gën a màgg Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi mu ni ma seetal rek jamono ji mu feeñ nga xam ni eh, tubaab yi yépp a ngi daw jëm ci réewu jullit yi jamono bu nga xam ni am na ay pensée ay courant de pensée ci biir lislaam yu jéggi dayo yu feeñ mu ne bu ñu dajewul woon ak xaatimul awliyaa yi konoon jullit yi dara du leen jar mu ni ma mojisa bu gën a màgg Cheikh Tidiane ci mojisa yonent bi gannaaw alxuraan xawma ko waaye imam Busiri it mën nañ ko boole ci mojisaatu rasulillahi amul amul sëkk sax na Binta Diop bu bëgg yonent ca Long Island tabaarakallaahu koy nuyu ak Mamadou Siley Gise ca Ohio koy seen ak suñu xaritu bopp aw brother Cheikh Cheikh ci tariqa xadriya la bokk tariqa chichti yi nga amee ci Brooklyn di amal programme yu am solo ñu ngi koy nuyu ak Cheikh Sidi Tidiane eh, Ndiaye eh, Buusiri moom nag ma ne ci kéemaanu yonent bi la bokk mel na ni tey eh, ci buntu kéemaan yi te yonent bi xam nga léppam kéemaan la ci buntu kéemaan yi la duga ak ñun soxna Fama Kébé moom politicien la waa APR bu New York ñu lay nuyu isaan tey ci buntu mujizaatu rasulillahi la tàbbi ak ñun muy juróomeelu bunt bi mu ne jaat li daawatihi l ashjaaru saajidatan tamshi ilayhi ala saaqim bila qadami nee na jaat dikk na al ashjaaru garab yi saajidatan da aji toroxlu ngir wuyu li daawatihi woote yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nan lañ ñëwee mu ne tamshi ña ngay dox ilayhi jëm ci moom ala saaqin ci peer ci yeel bi la xadami yu amul ndogu waaw mos nga gis yeel yu tegewul ci ndogu ñu ne yàlla bu ne wan najmu wa shajaru yasjudaani an najmu mooy shajar bu am sàq waaw an najum najmu mooy sa mooy shajar maanaam maa laa saaqa lahu min an nabaat mooy gàncax yi yi ci amul tànk ñu ne shajar mooy yi ci am tànk yi ci am sàq yi ci am eh, mi ngi wane benn ci walla lenn ci mujisaatu yonantu xam nga toujours euh, ma fàttali baytu góor gi nee na lim kéemaani yonent abas la abas te mag du fo maanaam kenn mënu ko lim la bëgg a wax dañ ciy barkeelu rek jaat li daawatihi l ashjaaru saajidatan nag mbir moom nekk ñuy woy sujjóot waaye sujjóotu euh, euh, wegeel toroxlu respect waaye du sujootu jaamu te garab yi sañ nañ ko eh, suñu sharia sax li ko jiitu eh, sharia yi ca amoon daan nañu nuyoo kilifa sujoot waxaru waxaru lahu sujadan ndax rukuwa ci wàllu googu dina firi sujjóot usjudu li aadam ñu dagan na xamuloo ne ñu defal ko mbindeef ay yonentu nag lam yamtaxinna bi ma taayal wa qulubi parce que xam na ni eh, ñi gën a eh, bëri affaire la amal affaire waaw bu bu ko toléré woon rek konoon àdduna tukki toléré wu ko te terewut nit yaa ngi koy def kon bu ko toléré woon fu jëm waaw ci suñu suñu sharia kenn mënul sujootal ku yàlla bind waaye garab yi ñoom sañ nañu lunkal yonent bi sujootal ko sujootul nañu Qaadi Iyaad ci téeréem bi ñoo tuddee ash-Shifa bi taarifi xuquqi al-Mustafa tudd na ca fasl boo xam ne eh, mi ngi ko tiitre eh, faslun fi kalaami shajari wa shahadatiha lahu bi nubuwati wa ijabatiha daawatahu waaw muy wane fii ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama garab yi waxul garab gi garab yi seedeel nañ ko ne yonantu la woo na leen ñuy dox di wuyu si muy décrire niñ daan doxee nag mu ne ka ënnama satarat ba mel ni sax dañoo bind sataran mbind mu rafet sataran ak mbind mu mel ni ñu mel ni calligraphe yooyu di bind bind yu rafet yooyu li ma katabat ngir ka annama satar dafa mel ni rëdd na sataran ak rëdd lima ngir la nga xam ne katabat bind na ko furuuha ay banqaasam wala furuuha seeni banqaas min badiil xatti ci aji yéeme ji mbind bi lamami wala min badiil xatti ci laale moom aji yéeme ji rëdd la bi ci digg yoon mu ne ah, soxna ajaasi ak soxna waaw xam naa bu ma fi toppee ñi ñiy dugg yo leen di lim duñu waxtaan du dégg ma bàyyi bañ pare bëgg sa booy xool eh, garab yi rëdd yi ñu rëdd ci digg yoon yi di wuyu su yonant ak banqaas yi dangay ngay foog ni eh, taaru mbind mi bindkat piir a ko def waaw ka annama satara satran lima katabat furuuha min badii alxati billaqam allaqam mooy wasatu tariq yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn aaraabi yu mi ngi ci albayhaqi wi dalaali nubuwati daf ko laaj eh, kéemaan pour mu mën ko gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ci garab gële nga ne ko rasulullahi moo lay woo sallallahu alayhi wa sallam naka lañ ñëw ci garab gi wax ko li ko yonent bi wax garab ga commencé jëng ndeyjoor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw ba yegsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko assalaamu alayka ya rasulallah la arab yi bi ne ko pour tester ko de ndax yëf yi du du euh, naka lañ koy tudde du chance rek du lu sut lu lu lu am nii rek parce que dafa tombe mu ne ko wax ko mu delluwaat fa mu saxoon yonent bi digal ko mu delluwaat ba fa mu fa mu saxoon mu mu taxaw loolu mooy wane ne <coughs> eh, alkawnu yuhibbu rasulallahi sallallahu alayhi wa al ashjar tuxibu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam al ahjaar tuxibu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam wa taarifu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam moo lay wan ne l'univers connaît et aime notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam ah, adduna bi yëpp a xam yonent bi te adduna bi yëpp bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, gis nga ba mu taxawee ci uxud uxud di wane ne mbëggeelam mu naan ko dalal waaw ah, yonent bi ne uxud xeer la wu ñu bëgg ñu bëgg ko xeer la wu ñu bëgg ñu bëgg ko gis nga ba moo bañ koy bañ koy ganale ca xaybar te ki koy ganale eh, alak ko la ci jublu eh, jigéenu yahudiyatu ba toggoon gàtt ba yónnee ko yonantu ca xaybar tooke ko ba ku ko laal rek mu alag la naka lay yëgati ziraa bi mu ne ko bàyyi ma dañ ma tooge xam nga ziraa bi dafay eh, représenté yeneen bàyyi ma yëpp ngir wane mbëggeelam ci yonent waaye c'était pas pour protéger le prophète parce que le prophète a été déjà protégé par Allah subhanahu wa taala saxaaba yi yañ daan eh, ñëw di di fa wuutuwante ngir bañ noonu bet fekk fekk ko fa yàlla wàccee wallahu yaasimuka min an nas yàlla lay musal ci nit yi mu ne lu ngeen fi defati kon moo tax yàlla moo koy musal waaye sabab bi yee yooyu le e, wane cofeel la rek ah. waaw wane cofeel la waaye yooyu e, du ñoom ñoo koy musal wane cofeel te it ñi nga xam ne seen bët màdd lay xool dinañ mën a gis lu wane ne ah kii de am na jawhar bu nekk ci gannaaw màddatum waaw ndax nit ki li niroog moom eh, moo ko mën a moo ko mën a xëcc moo tax suñu borom eh, def yonantu bi màdd bashariya bu ko neexoon def ko eh, benn lumière rek mu ñëw lumière ga mu doon ca cosaan bu ko neexoon mu ñëwee noonu moom sama borom bu ko neexoon mu bàyyi yonent bi mu dikkee noonu waaye daf ko def bachar qul innama ana basharun ko ndax e, bu bu niroog ñun mën a jaxasoog ñun tette ñu ba yóbbu ñu ci borom bi waaye yuuxaa ilayya moo tax ñu xam ne du du benn moo tax ñu xam ne du benn sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam jaat li daawatihi al ashjaaru saajidatan tamshi ilayhi ala saaqin bila qad bila bila qadami ka annama ka annama satarat satran lima katabat furuuha min badii al xatti bi laqami ka safarat ñu ngi mel ni dañoo bind sataranaam mbind limma ngir rafetaayu la nga xam ne katabat eh, eh, bind na ko bind nañ ko wala bind na ko vurowaa seeni banqaas min ba deel xab bi laqami ca digg yoon wa eh, bés sayidna jibril fekk na yonentu sallallahu alayhi wa mu mu toog mag ndeysaan mi ngi mi ngi am lu ko métti waaw euh, maanaa du pour liñ ko def sax waaye li tax ñu def ko ko waaw mooy xijaab bi dox ci diggante Quraysh ak seen borom ba ñu àttan ko euh, non seulement weddi waaye euh, mbugal ko sallallahu alayhi wa sallam yonentu laa de ñu mbugal ko wate yi ñu gis tey nii yëpp xewoon na xewoon na waaye yonentu nag dafa amoon stratégie yonentu dafa amoon stratégie te def ca liggéey ba yàlla may ko ndam ñun jullit yi tey lan mooy suñu stratégie bés bu set ñu ngi ñuy wan ne jullit yi ñoo rey jullit yi ca dëkk sàngam ca nangam sàngam te yëpp kàcce la dëgg la am na de faibles musulman yu ñuy utiliser di leen dugal ci yu mel noonu mais ñu leen cay utiliser du ñu ay jullit donc jullit mënul rey jullit kooku mënul nekk il faut que mu feebar walla ñu brainwash ko te euh, euh, nooni lislaam tey pour ñu xeex lislaam wutatuñu ay char walla ay bomb mais dañuy fexe psychologiquement ni ñuy recruter des faibles moo tax ku nekk ci ñun war a fexe di dem ci jàkk parce que wax nañ ne ci biir États-Unis ñi nga xam ne ñoom la euh, extrémistes yi di euh, infiltrer mooy ñi nekk ci seeni computer di wut diine te duñu dem ci jàkk yi waaye ñiy dem ci jàkk yi di taseeg ilimaan yi di tase kilifa yi ñooñu duñ mos a dugg ci yooyu parce que dañ leen xamal la nay diine waaw daañ leen xamal la nay diine waaw li nga dégg tey barki dem bu ca Égypte ko defee fu nekk ñu naan gis nga salafiste yi ñoo def li suuf yi fekk yooyu yëpp ay kàcc la ñi ñuy tuddee sa euh, ña leen jiite duñu sax jullit duñu sax jullit ñu sax julli waaw moo xam nañ ko tuddee ISIS nañ ko tuddee lumo lumo yëpp waaye kàcc la rek am na jamono bu nga xam ne am na journaliste eh, bu doon filmé ñoo xam ne dañu soloon seen i yëf di wane ne dañuy def attanta di tudd baatu yàlla ci arab ndekkee waa waa waa service secret bu Israël la ndax am na ci ku yàlla wuññi E, mbóotam ba ñu gis e, étoile David bi ca ca biir pour wax la ne la yooyu yëpp mi ngi am damay wax ne su fekkee ne man dama bëgg a takk xale bu jigéen bi te xale bu jigéen bi dafa bëgg alal man ma ñàkk sama jamaane bi am alal xale bu jigéen bi dafa bëgg ko rafet man ma ñaaw sama jamaane bi rafet xale bu jigéen bi bëgg bëgg ku euh, xalele man ma màgget sama jam xale bi nekk xale te man bëgg naa xale bu jigéen xam nga nu may def moo koy tam-tam lislaam ci xaala boobu lay dund lii xelu nit soxla yépp pour baax mi ngi ci diine kii moom du duma ko ñàkk tudd ndax sama sëriñ la sëriñ Mouhamed Lo ca Canada macha allah ak sëriñ kan ak sëriñ Pape Ndiaye eh, Pape moom sax duma ko tuddee sëriñ Pape Ndiaye géwël tabaarakallah moom xam naa rek <clears throat> xanaa bu yàggee ak Chérif ca Island mu def ko sëriñ bu yàggee ndeysaan sama wëllëre la nag depuis Sénégal yàlla xam na ko daan ñëw sama bureau waaye mosuma gis lu gën a neex am xaritu géwal te géwal xam nga sax amut waaye aada aada maye na ko lislaam dafa di diine bu nga xam ne moom rekk mën a dëgg dëgg dugg ci xelu kuy xalaat waaye christianité mënoo wax nit ku xelam di xalaat ne ko yàlla eh, pour mu mën a jéggal tooñ yi ko nit tooñ il faut mu sacrifier doomam nit ñëw dugg sama kër sàcc ma pour ma mën ko baal foog ma rey sama doom loolu xam nga eh, ci la gàtt xel yam ci la ndof yam bu ñu lay woo jëm ci yàlla jooju da ngay mujj nekk ate moo tax ate bëri occident buñ ne la yàlla eh, askanu sàngam la jur ñoom la sopp ñi ci des yëpp ay bàyyi ma lañ gis mooy yahudi ya ñoom foog nañ ne ku dul yahud dañu jàpp ne ay bahima lañ dañ leen bind pour ñu servir yahudiyatu da nga naan yàlla ji def li ko raciste la kooku ko du ko mën a du mën a gëm ah soxna Awa Ndaw tabaarakallahu da nga naan yàlla ji def li ko raciste la nga ñëw ci lislaam na lépp lu eh, mbootaayu xeet yi di wax ne moom la xeexal nit mu am ko l'islam jox na ko il y lépp loo xam ne mooy tax nit gën a baax ka ca des muy vertu yàlla wax na bu yàgg ne loolu la inna akramakum indallahi ki gën a baax ci yéen gën a bàyyi xel yàlla moo gën ci yéen inna akramakum indallahi atqaakum xam nga diine boobu bu fekkee ne mi ngi dugg Occident occident boo xam ne eh, eh, catho eh, naka la tuddati diine masihiya le catholiques nanguwuñu woon sax ubbeeku pour yeneen pàcc yi bokk ci ñoom muy les protestants am fi bërëb xam nga bu lislaam ñëwee boo demee Londres tur ba fa ëpp di Mohammed nga dem Bruxelles dem foo ah, loolu duñ ko mën a seetaan ñoom moo tax daañ def lu nekk waaye nag lan mooy suñu stratégie ñun julliti ndax dañuy nekk di xuloo rek ndax dañuy nekk naan xoolal lii rek ndax dañuy nekk naan ñëw leen li suñ mag ñi nekk boo ko defee suufi bi di xuloog ki ñuy tuddee wahabis wahabis bi di xuloog ki ñuy tuddee suufi te kenn ci ñoom du ci lu du dara ci li muy wax waaw ñun on kër que des euh, xaw ma nan laa ko mën a tuddee sax des paris politiquement parlant Seydina Jibril fekk yonantu ci xaala boobu waaw Quraysh lor ko mu ngi jàkk ndeysaan te du liñ ko lor a tax mais li tax ñu lor ko daf leen yërëm Jibril ne ko ndax bëgg nga ma dalal sa xel wan la wan la aaya mu ne ko waaw mu ne ko xoolal mu xool ci garab xool gis garab Jibril ne ko woowal garab gi mu wow ko garab gi ñëw ba ci kanamam mu ne ko digal ko mu dellu sidna rasulillahi digal garab gi mu dellu mu daldi ne jibril xasbi xasbi li doy na maana bu nit ak xelam nangu tit eh, këwnu bi moom nangu nañ garab yaa ngi nii amuñu ruux buy dund waaye am nañu conscience dina yonantu nga jaat li daawatihi l ashjaaru saajilatan tamshi ilayhi ala saaqin bila qadami ka annama satarat satran lima katabat furuuha min badii lxati billaqami mithla alxamamati du garab yi rek di ba ci eh, niir yi mithla alxamamati kem niir ka saa iratan biram nekkam di aju dox an nasaara fu yonent bi jublu jëm rek mu jublu jëm fu lana ko taxoon a jóg mu ne tëqiyi xanaa di ko fegal xarra wa tiisin tàngaayu eh, xafiira mooy pax moomu nga xam ne ca la ñoo eh, def da ca la taal di fa di fa di fa lakk mburu waaw lil hajiri ñeel njolloor bi tàngaayu njolloor bi bi nga xam ne xami ah, xarra moom lay wala watis moom lay sifaal ci xami bay aji tàng bayt bu xaw compliqué la ba eh, eh, góor gi naka la tuddati cheikhul islam zakariya al ansaari ci charxam wax na sax ne foog na ni foog na ni eh, Busiri waxu ko waaw na bayt bi foogul ne foogul ne eh, sax na ci ci riwaaya burda bi ñu jëlee ci imam Busiri ndax dafa xaw a ak lëf waaye maanaa mi eh, wér na waaw mën na am mu sax saxee na waaye ñett baati xar ak watiis ak hajir ak xami bi moo ko xaw dérangé moom eh, cheikhul islam Zakaria al Ansari te xam nga ku ko xam-xam ci àdduna doo ko mën ko mën gis waa ku ko doo xool tey téere xadiis yi leen nga mën ci riwaaya benn jëm ci ka ko bind te jaaruloo ci cheikh Zakaria al Ansari moo tax ñiy wax ni sufiyanke yi dañu wuteeg sunna kenn warul déglu seen wax suñu yeboo bàyyi téere xadis yëpp ndax amul téere xadis tey boo mën a def dem ba mu yegg ca ko ko bind te du jaar ci moom te te suufiyanke la moo tax le problème suufiyanke ak salafisme yooyu c'est un faux problème parce que tasawuf du du nit waaw tasawuf du nit du diine mais école la école ba nag bu la mënta setal bu la mënta baaxal bu la mënta jox yàlla euh, na nekk école ku gën ci ñoñ tasawuf yow ma koy wuyoo doomu tasawuf wax lu la neex rek dangay wax lu la neex rek nu ñu yàlla boole baaxal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ daam sëriñ Dramé barakallahu soxna laay njaay macha allah ñu leen di ziar yi ñëpp Eh, mbiru xamaamatu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ci yu yàlla terale balaam ko yónni mi ngi nekk xale bu ndaw bu jaaree fu tàng mu am niir wu ko topp eh, bés sayiduna eh, abu taalib bàyyi taxam ànd ak moom di tukki booba yonent bi fukki at ak ñaar la ba ñu yeggee buntu Sham muy busra fekk am na labbe bu ñuy wax baxiira mi ngi ci sawmaam ba ñu yeggee dal fañ daan dal kër la ku ko jege waaye mosula jéema toppatoo seen mbir waaye yoon wi nag naka lañu ñu ci euh, barab bi mu gis ne am na niir wuy keral kenn ci ñoom benn xaleel ci ñoom bi ñu ñëwee ba dugg ci taatu garab gi nee na mu gis banqaas xobi garab yi di sujjóot maanaam di ko di ko nuyu di maanaam ni ni mu xewee léegi nga xam ne dangay gis ñuy nuyu nit ki def nii lu mel noonu waaw loolu nag def ko équation mu daldi leen invité lekk ñu ne ah tey de am na lu xew ndax kii mosul ñu faale lanax tax waaye ñu dem dama leen invité waaye bëgguma na kenn des ci yéen bu muy mag bu muy xaleel bu muy gor bu muy jaam na ñëpp ñëw ah Quraysh ñëw wante boobu yonentu moo gën a tuuti ci ñi ànd ak ñoom ci at ñu bàyyi ko ci seen bagage yi bi ñu yegsee mu xool gisul niir wa mu gisoon mu xam ne kii tax mu invité leen ñëwut mu ne waxoon naa na ñëpp ñëw ñu ne ko benn xale bu ndaw rek a fa des di ñu seetal bagage xale la mu ne ay ah, yéen waaw xaw leen xas noonu ah xaaris ibnu abdul muttalib ibnu abdi manaaf ah wax na dëgg lii ak lu umu la waaw ci waxi coxar la doomi abdul muttalib ji ñu bàyyi fi waaw waaye labbe bi moom nee na leen lu tax ngeen bàyyi ko te pourtant ci ki gën ci yéen la bokk noonu la ko waxee ndeysaan mu dem jëli ko indi ko ñu ñëwee euh, labbe bi seen niir wa mu seenoon mu jóg di ko xool di xool ay mbir ci yanamam ñuy lekk ba ñu paree eh, mu ne eh, xale bi ma laaj la ci ci ci xaqu laata ak uzza mu ne ko bu ma laajati ci xaqu laata ak uzza ndax amul lu ma bañee ni laata ak uzza fekk daf koy teste mu ne ko maa ngi laa laaj ci xaqu yàlla nag ma tontul sama question yi mu ne ko laajal li la li la neex di ko laaj di ko laaj ba ci ni muy nelawee yonentu sallallahu alayhi wasallam di ko wax muy xool muy dëppoo la mu jàngoon muy xool yaramam gannaaw kanam ba gis bërëbu bu wët bi mu fóon ko mu daldi ne Quraysh fekk Quraysh kat ñoom ñoo njëkk ñoo ku njëkk a jëw kat li muhammadin inda hada rahibi la qadran Abu Talib nag commencé ragal làbb bi ne ko kii mooy kan ci yow ne ko sama doom mu ne ko dee xale bi bàyyam dundut mu ne ko sama doom mbokk la mu ne ko anamu mu ko faatu na balaa moo judd ana yaayam mu ko bu yàggul rek la faatu wax nga dëgg na dellu ak sa doomu mbokk mi ndax ragal naa yahudi lor ko mu ne ko sa doomu mbokk mi mbir mu màgg dana feeñ ci moom ndax li ma gis ci moom yépp dëppoo na ak màndarga yi ma gis ci suñ téere yi ci la abu taalib dëpp ànd xale bi àndaatut ak moom tukki ba bi muy am ñaar fukki at ak juróom di def commerce ci la soog a tukkiwaat niir woowu doon ko keral moom la moom la Seydina Busiri di junji waaye wax nañ ne irhaas la ndax nee nañ bi ko yàlla yónnee ci la niir woo dem irhaas wax naa leen démb wala barki démb ne mooy mubashir voilà maanaam dafay luy préparer la luy wane ne lëfa ngi ñëw fondement la waaw ñu ne bu fekkoon ne niir wa topp na ko gannaaw buñ ko yónnee buñ ñu ma dina Seydina Abu Bakar du soxla di ko keral ba ñuy xamee ci kiy keral ne kamuy keral mooy yonent bi waaw yàlla nag moo gën a xam ndax ma nga fa woon wala nekkatu fa woon moom niir wa mu continuer ne aqsamtu bil qamari munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat alqasami sallallahu alayhi wa sallam aqsamtu waat naa bil qamari ci weer wi al munshaqi bada aji xotteeku ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iqtarabat issaatu wa nshaqa alqamaru maa ngi gëñ ci weer wi lu tax mu gëñ ci weer te yonentu ne kuy gëñ na gëñ ci yàlla ku gëñ ci lu dut yàlla bokkaale na ah ñu ne sañ na gëñ ci sañ na gëñ ci xamar ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa am na aarab bi bu ko seetsi laaj ko ay question ba muy dem yonent bi ne ah texe na su fekkee lim ma tontu dëgg la waat naa ko ci baayam aflaha wa abihi in sadaqa ñu ne kon yonent bi gëñ na ci baayu arab yi bi kon mën nañoo gëñ xanaa kon ci lu dul yàlla tànk tànk tànk e, ngëñ gi dafa nekk ala wajhil aadati waaw li imaam Nawawi wax imaam Nawawi nee na dafay fekk ngëñ gi comme ni ko arab yi baaxoo rek barke nangam fekk euh, jubluwuloo ci màggal la ngay gëñ comme ni ngay màggalee yàlla am ñu ne gëñ ci gëñ ci lu dul yàlla mi ngi xaram ci bu fekkee ne danga fas ne ki ngay gën ci moom yàlla la da fas ci moom uloohiyatu ñu ne ci lay ci lay xaraame ah, ñu ne li yonent bi wax ne ku gën ci lu dul yàlla bokkaale nga walla wetti duñu wax ne ku gëñ rekk dañ lay àtte ci loolu waaye dafay fekk mu fas ni la mu gëñ walla ka mu gëñ ci moom yàlla la ñu ne déedéet ngëñ gi ngëñu tëkkiit la rek waaye du ngëñu euh, taawim al maxluq ka taawimillahi tabaraka wa taala ñu ne sax déedéet gëñul ci weer wi waaye ki ki ki ki bindu weer wi ci lay gëñ mu xalaf ko maanaam aqsamtu bi rabbil qamari la gëñ maanaam dafa gëñ bi max mahdufin maa ngi gëñ ci borom weer wi iqtarabati saatu wa nchaqa al qamaru weer wi nga xam ne xottil nañ ko ko yonentu sallallahu alayhi wa toog na ca màkk yéeféer yi ko boo bëggee ñu gëm la xottil weer wi muy ñaan ba sama borom xar weer wi ñaar bi ci montagne bi bàcc montagne ba mu ne fashhadu seede leen ñu ne daf ñuy njabar sehrun mustamir daf ñu njabar daf ñu njabar waaye nañu bàyyi ba eh, ñi tukki woon ñëw ku tukki ku aksi rek ne gis ngeen liñ gis ah, gis ngeen liñ gis ñu ne ah moom de dafa mel ni sehr mustamir la njabar gu àdduna la isa eh, ah, this is qari nasrul islam He's one of the best qurra of New York City, inshallah. And Ahmed Fall, inshallah. Sidi Umar, Sidi Umar Lo, barakallahu lakum. nee na aqsamtu bil qamaril munshaq ana lu muy géñ nag jawaabi xasam ji mooy inna lahu min qalbihi nisbatan maa ngi géñ ne inna lahu ñeel na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min ci xolam bi nisbatan ak askane mooy xotteeku weer wi am na nisbatu ak xolu yonent bi mi ngi junj fii xotti gi ñu xottil yonent bi sallallahu alayhi wa te xotti gi sax na ci riwaayaat yu bari ci ahadis yu bari xotti nañ ko bi muy nàmp maanaam bi mu bi mu na bi mu nàmpee ba fer la xalima delloo ji ko yaayam waaye bugg ko delloo yaayam joxaat ko ko eh, mu ànd ak eh, mbokkam yi mbokki nàmpalam yi eh, ci àll bi malaaka yi dab ko ci lañ ko njëkk a xottilee xolam ngir ne bëgguñu mu soso ni ñëpp di soso ndax moom warul fa warul topp bànneexam wo seytaane warul am ci moom cër ñaareelu yoon ba ñu ne ba mu amee fukki at ndax mi ngi tu mi ngi mi ngi dugg sinnul murahaqati waaw mu ngi mat si góor ndax mu mat góor ala akmalil ahwal ak bi nga xamee ne yàlla nga koy yàlla nga ko yónni ngir mu mën a euh, recevoir waxyu gi ala atamil ahwal ak bi ñu koy ràññaane ngir yamu war a taseer waaw xaw ma ku ko ku ko ku ko nooseeti wa shuqa sadrul Mustafa wa huwa fi daari bani saadin bi xayri mutiya ka shaqihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi laylati mirajin wa inda albixtha waaw wa shuqa sadru lmustafa wa huwa fi daari bani saadin bi geyri mutia ka shaqihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi laylati mirajin wa inda albixtha mu ne gëñ gëñ gi nag nekk na yaminan mabruratal qasam daf ko xadaf gëñ naa gëñ goo xam ne gëñ gu dëggu la waaw mabruuratal qasami du ngëñu caaxaan ne inna lahu min qalbihi nisbatan e, bil qamari lil qamari ay aqsamtu bil qamari inna lahu min qalbihi nisbatan nisbatan lil qamari al munshaqi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama yàlla sax gëñ na ci weer wal qamari ida tasaq waa maa ngi gëñ tamit bi ma xawal xaaru mu mel ni at fu la wala waa tuddal ci mujizaatam yi maa la nga xam ne xawaa laq na ko alxaaru xunt ba min xayrin ci yiw muy yonent bi wa min karamin ak ci tedd nga muy Abu Bakar min xayrin ci xeeti jikko yu gën yu rafet yi wa min karamin ak ci xeetu tabe muy abubakar wala min xayrin wa min karamin yonent bi mooy xayru mooy karam abubakar mooy xayru mooy karam buñ ne min xayrin tudd ne mooy jikko yu gën yu baax yi muy bi karam gi ñu askanee ko abu abubakar parce que abubakar léppam la sacrifier y compris bakkanam ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallam moo tax ba mu ànd ak moom ci hijra léeg-léeg mu ngi ci ndeyjooram léeg-léeg mi ngi ci càmmoñam yonent bi ne ko lii lan la mu ne ko dama xam ne boo faatoo ñëpp alko man nit laa rek ci nit yi waaye laa rek su ma dee yi du tere diine ju ko continue yow nag soo faatoo àdduna yëpp yàll ko isaan gi soppay nabi sallallahu alayhi wa ñu koy ziar moom ci ngi eh, bi di seetaan ca dëkk ba nu mu tuddati Atlanta Georgia wa ma xawal xaaru min xayrin wa min karamin wa kullu xuntu du làq yiw du yà du làq tedd nga boo ko fiiree ne wa ma xawal xaaru ak la xuntu wa làq min xayrin ci yiw wa min karamin ak ci tedd nga li mu bëgg a wax mooy ñaar ña fa nekk wala la ñaar ña fa nekk làq muy sayiduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sayiduna abubakar xuntu wi mooy xaaru xaaru xaaru jabali thawr waaw yonentu ba muy gàddaay ànd ak Seydina Aboubacar laqatu nañ fa ñetti fan yéeféer di leen seet yàlla gumbaal seen bët yi ni ko imam buusi yuy waxee mu ne wa kullu tarfin te bépp pet muy bët minal kufaari ci bët yaa moom ma nga sax ca kanami yéeféer ya ami aji gumba la amiya gumba na anhu wallis yiw wa ki yonantu anhu wallis karam nga ki abubakar anhu wallis xayroo karam gu yon ki yonantu anhu wallis xayroo karam ki abubakar radiallahu tabaraka wa taala ba yonantu sallallahu alayhi wa sallam di tontu abubakar bi mu ne ko nawartu ila aqdaamihim fawqa ru'uusinaa fa qultu yaa rasula allahi law anna ahadahum nawara ila qadamayhi absarana bakar dañu nettalil yëf yëpp mu ne maa ngi xool e, seen tànk yaa ngi presque ci suñu kaw ma ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu kenn ci ñoom xooloon ci tànkam rek gis ñu mu ne ko loo xam ci ñaar ñoo xam ne yàllaa leen ñetteel maa wannuka bi nayni laahu thaalithuhuma yàlla daal di ko rikoot ca alquran waaw illaa tansuruhu faqad nasarahu llah illaa tansuruhu faqad nasarahu llah id axrajahu alladina kafaru thaniya thnayn id huma fi lgaar id yaqulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim moom la Buusiri di nettali fii ne fa sidqu mubaalaga la dafa mel ni dafa xadaf mudaaf ma mooy borom dëgg gi wala borom dëggu gi fil xaar yi mi ngi ci xunt wi wa siddiqu dëgg laa koon wi fil xaar yi mi ngi ci xunt wi boroom dëgg gi boroom dëggu gi mooy yonent bi ki ko dëggal te amul benn sikk mosu koo sax mën a am mooy abu yonentu nee na képp ku ma mos a woo rek xalaat nga soog a ñëw ba mu des Abubakar munul imaginer ne Mouhamed mi ma xam depuis enfance mën na wax lu dul dëgg mënu ko imaginer waaw moo bi ko yonent bi wax rek ca la nan fa sidqu aji dëggu ji ki moom dëggu waaw e, si fa suñ ko remplacer master booba yëf yi ëpp na te mooy yonent bi fil xaari wa siddiqu dëggalaakoon bi te mooy Seydina Abu Bakar fil xaari lam yarima bougé wuñu dañu ñu fa waxum te yéeféer yi nag ñoom yaquluuna d'après liñ gis ñi ngi naan maa bil xaari nekk ci xunt wi min arimin kenn xunt wi kenn am mënu fee nekk lu tax parce que la gis mooy pittax mi lam fa def ak jargoñ wa lam fa def ñaari bàyyi ma ñaari ñaari naka lañ koy waxee ñaari xayawaan lañ yu nga xam ne duñu xayawaanu kër duñu xayawaanu biir kër du ñu xaywaanu biir kër mooy fu ñu gis eh, fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu nekk rek bu ñu yëgee doomu aadama rek dañoo daw léegi ñooñu fa ñu nekk mënuñu imaginer ne ay doomu aadama ngi fi maanaam fu doomu aadama yi jógee amuñu fa soxla kenn nekku fa fa la def seen yëf fa lañoo ñoo tàgg fa la nen yàlla nag indi fa pour réeralee ko bëtu ak attention yëf moo tax mu ne wannu jortu nañ ne alxamaama pittax ma lam taxum nenut ala xayril bariyati ci kaw ki gën ci mbindeef yi xuntu wi daal pittax eh, tàgg fi tàgg fi dégg nga bu fi nit jaaroon tàgg mi dana yàqu te tàgg mi moom ak Muhammad zannu jortu nañ ne alxamaamu pittax ma lam taxum tàggut ala xayril bariyati wa zannu jort nañ ne al ankabut jargoñ ga lam tansij rabbut ala xayril bariyati bu siri nag ne yàlla mooy wëttu ku ko neex ak lu ko neex bu nit yi di ut wëttuwaay mu ne yàlla seet ñaar yi nga xam ne kenn mënul yaakaar ne war nañu mën a nekk foofu ndax ankabut fu mu yëgee présence su nit daw du fa toog ba fay takk bu ñëwee nag ñi dugg fi léegi mu mën faa tàgg dégg nga mu mën faa ràbb pittax du tàgg fu nit nekk bu ñëwee ñi dugg fi léegi mu mën fee tàgg mooy kaaraange yàlla toll noonu moo tax mu ne wiqaayatullaahi kaaraange yàlla aghnat mu aghnat doy na an mudaafa an mudaafatin lu ñu ful min adduruuci ci mbubu koŋ wa an aalin ak ci aji kawe min al utumi ci tata bu nit ñi di wut ay tata di ci dugg wala di sol ay mbubb ko ngir fet wala jaasi du leen mën a laal fekk dañu amul kaaraange yàlla nde kaaraange yàlla gën a mën a aar loolu moo tax mu aaree leen lii mu ne moo tax yonent bi nga xam ne nag mi ci ci wiqaayatullaahi man it eh, bi ma xamee loolu laa jël sama mbir yëpp teg ko ci loxo maa saamani dahru dayman wastajartu bi illaa wa niltu jiwaaran minhu lam yudami maa saamani mosu maa togg dëhru jamono daf ko wax ala arab mooy ahlu dëhri rek ndax jamono mënul togg kenn lor maa saamani mosuma togg dëhru jamono dayman ak lor wala dayman ak gotti mooy lor rek wastajartu tama sàkku kaaraange bi ci moom illaa wanniltu lu dul am naa jiwaar ak jege goo xam ne lam yudam desu ko gotti jiwaaran minu mooy mosuñu ma tooñ ma dem wuti ndimbal ci yonent bi lu dul ne am naa ko sallallahu alayhi wa mosuma tollu diggante dem seeti yonent bi lu dul ne am na ndimbal la ma bëggoon moo xam tooñ gi ci wàllu àdduna la walla tooñ gi ci wàllu sama bakkan la yàlla moo ne walaw annahum id zalamu anfusahum jaauka fa staxfaru llah wastaxfara lahum lahum rasulu la wajadu llaha tawaaban rahima su fekkoon ne bañ tooñee seen bopp dañ laa dikkal waaw ñu baalu yàlla nga baalu leen yàlla daa ñu fekk yàlla muy baalaakoon di yërëmaakoon ibnu kathir dana nettali ci laaye ji ne mbooloo tudd nañ bokk na ca cheikh abu nasr ci téereem boobu la nu tuddati Achaamil xikaaya bu siiw bu xam ne góor ga dafa ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi toog ci xabroom ne ci saase rek ma gis benn aaraab bi aksi nee na ma dégg ko mu ngi naan ko yow maa ngi lay assalaamu aleyka ya rasulallah sallallahu alayhi ngi lay nuyu yow yonent yàlla muhammad mu ne ko sama borom dafa ne bu fekkoon ne bañ tooñee seen bopp dañ laa dikkal yow yonantu baalu yàlla nga baalu leen daañu fekk yàlla muy baalaa di yaramaa ko ñëw naa ci yow di jëggalu sama bàkkaar di ñaan nga tinuma ci kanam yàlla daal di wëy yonant bi nag wëyya ba léegi ma nga ceeb rawdatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa xayra man duhinat bilqaaia aumuhu fa taaba min tiibihinna alqaau wal akamu nafsi lfida nafsi lfidaau li qabrin anta saakinuhu fihi alafaafu wa fihi aljuudu walkaram yow mi nga xam ne ku ñu mosa rob ay yaxam ci pàkk rek yaa ko gën te yow bañ la robee ca pàkk ba sa teeyu yax tax na pàkk ba teeyee ca ak la ko wër saxati sama bakkan def naa ko muy njot ñeel xabru boo xam ne yow yaa ko dëkkee xabru boo xam ne ka fa nekk bu ñuy wax euh, ñoom ak fegu kenn dabu ko ca tabe kenn dabu ko ca tedd nga kenn dabu ko ca nenn na laaraab bi loolu la wax rek dem góor ga ne ma nelaw gis yonantu bi sallallahu alayhi mu ne ma dabal laaraab yu boobu nga ne ko yàlla baal na ko Buusiri nag mu ngi tudd ne loolu ci mucjisaatu yonent bi la bokk foo jaaxlee rek boo ne yaa rasulallahi boo mënee dem Madina baax soo ko mënul def fi nga nekk nga ne yow yonent maa ngi ñaan yàlla di def tawasul ci yow mu defal ma nangam ak nangam yàlla defal na ko dafa am benn gumba ñëw fekk yonentu a ngi toog mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma samay bët gis yonentu ne ko demal nga julli ñaari ràkk nga ne yàlla maa ngi lay ñaan atawajjahu ilayka bi nabiyika bi muhammadin ya rasulallah inni atawajjahu ila bika ila rabbika yaa ngi dégg de maa ngi jokku jëm ci sa borom jaar ci yow yow muhammad yow yonentu bi sallallahu alayhi wa ñaan yàlla delloo ko ay bëtam kii solo xadis yi ne naa naka lañ toogee mu dellu siwaat fekk ay bëtam a ngi xool macha allah ci dama seen sama sama kilifa la imaam Mouhamadou Sall di ja di limaanu masjidu taawun jàkk Bénédict ca imaam Mor Cissé nee na bu kenn wax jàkk Bénédict ni ñuy wax masjidu taawun ca Bronx macha allah ñu koy nuyu te di ko ziyaara Buusiri nag ne manit fii jamono mosut ma laal mo wuuti yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul jege ga ko jege wuti ga ma ko wuti aaree na ma ca sallallahu wa alihi wa mu ne walal tamastu daarayni min yadihi illa stalamtu nada min xayri mustalami walal tamastu mosuma sàkku rina daaray ni koomu àdduna ak xàllaxira muy ñaari kër yi te mooy ma am lu ma doy ci àdduna te mucc ci àllaxira mosuma ko sàkku mi yeddi tukkee ci loxoom illa lu dul jël naa annadaa may min xayri mustalami mu jógee ci ku gën ci ku ñuy sàkku may mosuma soxla dara ci àdduna laaj ko yonent bi lu dul jot naa ca mosuma soxla dara àllaaxira laaj ko yonent bi lu dul jot naa ca xaw ma nag nu mu demee waaye moom waliyu yàlla la xam na ko yonent bi sallallahu alayhi wa mooy xayru mustalam moo gën ci ku ñuy ku ñuy may ku ñuy ku ci mbindeef yi ndax yiwu àdduna ak àllaaxira ci loxoom la nekk yiwu àdduna ak àllaaxira yépp a ngi ci loxoom te du gàntal dafa am benn jigéen bu ñëw laaj sa saxaaba yi ndax xam ngeen luy pour dëtu ñu ne ko waaw mooy yére bu ñawee nangam ak nangam mu ne yonent bi nag dama la ko ñawal ci sama loxo maa maa la ko jox kado nga di ko sol fekk yonent bi mi ko soxla mu sol ko mu rafet lool benn waaye ne yow yonentu xoddee ma ko yonent bi ne ko baax na nangu naa naka la demee këram lem ko ba mu jekk mu yónnee ko waaja waa majlis ba nag di ko yadd moom waaja ne xam nga ne yonent bi du gàntal lu tax nga ko koy laaj mu ne leen wallahi laajuma ko ko lu dul pour garder ko bu ma dee lu dul pour bu ma dee ñu sàngee ma ko sahlu mi solo xadis ji sahlu ibnu saad ne yére boobu lañ sànge waaji bam dee muslim dana wax ne anas ibnu malik dana wax ne mosuñoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara lu dul joxe na ko benn waaye ñëwal na ko yonent bi jox ko gàttu gàddu gëlëm wala gétt gëlëm ak i xar i bëy ak i nag yoo xam ne fees na diggante tund ak tund waa ji ñibbi naan waa dëkkam gëm leen jébbalu leen ki ma gis muy muhammad may gi muy maye ku ragal ñàkk du ni maye fa inna muhammadan yuti ataan laa yaxsha alfaqata ndax mooy séddale mayu yàlla yépp ci loxoom la ko yàlla teg wax na ne innama ana qasimun wallahu yu'ti man maay séddale yàlla mooy joxe yàlla jox na ko mafatixu xazaini samawati wal ard ni mu ko waxee ne inni faraqukum wa ana shahidun alaykum inni wallahi la anzuru ila xawdi wa inni qad uctiitu mafatixa alardi wa inni wallahi ma axaafu bacdi an tushriku walakin axaafu an tanafasu fiha noon na du shirk laa leen ragalal waaye alal ji ma gis yàlla teg ko ci sama loxo mu war a wàcc ci yéen laay ragal ngeen koy xëccoo ba mu fàttaloo leen yàlla an nañ yàlla musal ci fàtte yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa tunkiril waxya min ru'yaahu inna lahu qalban ida naamatil aynaani lam yanami laa tunkir am na ci nusxa laa tunkiroo bul weddi wala bu leen weddi alwaxya waxyu gum gis min ru'yaahu ci géntam yonent bi dafa gént nangam ak nangam am rek nga ne ah loolu gént la rek mu ne déedéet yonent bi yeewoom yu la nelawam géntam yu la lu tax inna lahu naka ñeel na ko xalban xol boo xam ne ida naama su nelawee al aynaani ñaari bët yi ñoom lam yanami xol ba du nelaw te xol mooy sippeekuwaayu waxyu moo xam ci nelaw la moo xam ci lu dul nelaw du ay bët gannaaw xolam du nelaw kon buy nelaw waxyu la bu yeewoo waxyu la moo tax sayidna nabi sayidna rasulullahi sallallahu alayhi wa ala wax nday aïchatu ne ko yaa aïchatu inna ayni tanaamaani wala yanaamu qalbi yow aïcha sama bët yi de danañ nelaw waaye sama xol bi du nelaw sallallahu alayhi wa alihi mu ne wa daaka loolu nag ma ngay tàmbali xiina buluurin fa mu jotee gént waaye buluurin fa mu jotee min nubuwati maanaam dafa am buluuru mukallafin ci lislaam waaye nubuwa dafa am mooy famu mu jotee nubuwati gi wa daaka loolu nag xiina buluurin ma nga tàmbalee ca jot ga min nubuwatihi ci nubuwa fa laysa yunkaru deesu weddi fii ci moom xaalu muxtalimi mbirum aji gént ñu mën cee dégg ay yëf benn bi mooy gént gi te ñu koy considere wax waxyu mi ngi tàmbali fa mu jotee ñu yónni ko mooy ba mu amee fanweeri at ak juróom ñeenti at ak juróom benn weer ñu nekk ca la commencé gént ba weeru koor ñu yónni ko ñu ne ba ma amee ñaar ñaar ba ma amee ñeent fukki at yu mat sëkk la commencé gént ba weeru koor ñu yónni ko wala loolu sax ci yónnentu gi la ma ngay gént di dajeek malaaka mi ngir loolu may ko mu miin a dajeeg malaaka ci xaalatu naw mi ba ñëwee ci xaalatul yaqazati du métti ndax dañuy werante ndax ci weer wi mu lañ ko yónni wala ci weeru koor lañ koy yónni te diggante bi juróom benn weer a ci dox mu ne wa daaka xiina buluugin min nubuwatihi fa laysa yunkaru déddi weddi fii ca moom xaalu muxtalim bi mbirum aji gént te sax jamono bi ñuy yónni ab yonantu muy gannaaw ñeent fukki at daanaka sax du jamono joo xam ne ku ca géntati war nga jàpp ne génti kasa kasaw la donte dana ca am loolu it jumla ji mën na ko junji mu ne tabaaraka allahu ma waxyun bi muktasabin wala nabiyun ala gaybin bi muttahami tabaarakallaahu màgg na yàlla subhaanahu wa taala maa waxyun déet waxyu bi muktasabin muy lu ñuy fàggu walam takun nubuwatun muktasaba walaw raqa fi lxayri ala aqaba bal daaka fadlullahi yutihi liman yashaau jalla allahu waahibul minan ca borom jawharatu tawxid imam laqani nit du baax a baax a baax a baax ba tax mu mën a fàggu nubbu wëtu mayu yàlla la yàllay tànn ku ko neex muy eh, yonentu yàllay tànn ku ko neex jox ko nubbu wëtu dalika fadlullahi yutihi man yasha wala nabiyun déetub yonantu bi muttahamin muy ku ñu tuumaal ala xaybin ci xabaaru xaybu ci xabaari fàddu mbir mi dafa fàddu rekk tax ñuy wax ne mën naa am dëgg la mën naa am dafa wax nangam walla di di ci sikk sàkk wala di ko tuumaal ndax déedéet wa ma huwa ala xaybi bi danin ay bi muttahamin lu mu wax rek xabaare ko ci wàllu xaybu dëgg la ndax ñun ñoo am xaybu waaye ñoom yàlla fay yëgati diggante ñoom ak yooye ñuy xabaare ci xayb amatuñu ko maanaa xaybu shahaada la ci ñoom waaw kam abraat wasiban billamsi raaxatuhu wa atlaqat ariban min ribqati lamami mu continuer ci mujisaatam yi ba léegi ne kam bari na abraat bu wéralee raaxatuhu tenqal rasulullahi sallallahu wasiban aji feebar bi lamsi ci mujaradu laal ko rek yonentu sallallahu alayhi wa laal ku feebar ci tenqam rek mu wér ak a bëri ko defee alayhi salaatu wasalaam yàlla na ñu laal ci tenqam eh, boo jàngee siiral Halabiyya dana ci wax ne qataadatu wax na ne bésu uxut bésu uxut damay nekk ci wàllu yonantu di ko défendre sama di ko défendre ci fett yi ak sama kanam sallallahu alayhi ne benn fett ñëwal ma boo xam ne sama euh, xadaqa bët fuqee na ci ne yonentu sallallahu alayhi wa gis bët ba ci sama ténq rek ay rangañam commencé sotteeku ak bëri yërmande sallallahu alayhi wa sallam mu ne yow yàlla yàlla na nga fegal xataada ni nga fegee ni mu fegee sa kanamu yonentu neena na yonentu daal di jël bët ba ci ténqam bu tedd ba delloo ko ca palaasam bët booba mujj moo gën a rafet sax ba ca des sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ah boobu sama mbokk la moom maa ngi koy seen léegi alaaji ma dikkee Dramé ca Italie allah ak soxna sama soxna ndeysaan bu waxee rek mu ne man maay maay maay ma ni ko ah kon de léegi tey daara ji tas ndax kenn du la gis nga jàng si <laughs> isaan <coughs> sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallam ah, bi delloo ko mu gën a rafetati am na ñu ne sax ci beneen riwaay def ko laaj ne ko boo boo bu la neexee nga muñ nga am aljanna bu la neexee it ma delloo ko ñaanal la yàlla mu ne ko ah, aljanna fay gu rafet la de may gu màgg la de waaye man yàlla dafa def eh, dama di koo xam ne dama bëgg eh, am ci am ci soxna yi am na yu rafet yi dama leen bëgg waaw te du du gàcce nag waaw góor bu bëggul soxna bu rafet kooku du góor waaye na ko na ko na ko yiwal rek nag waaw mu ne damay ragal nag bu may dem takki ñu ne kii kat tabaarakallaahu eh, soxna Khadija Adama Diallo ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi jéggalu de ñi suñu bët tege rek la mën a ziar waaye gis nañ ne ñuy dugg ñu ngi bari tabarakallah waaye duñu mën a gis ñëpp ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax mu ne damay ragal jigéen ñi bu ma demee di labati ñu nekk xanaa du patt bi la man daal bëgg naa nga defaral ma ko te ñaanal ma yàlla mu may maal jënn xam nga yonentu ñaanam tabarkal ku muus la moom Qataada ndax am na ku mu amal affaire xam na ko isaan yàlla def yonent bi delloo bët ba daal di ko ñaanal yàlla yàlla na ko làmb yàlla na ko woddee taar te nga fegal ko eh, ni mu te nga fekk ko ni mu fegee sa kanamu yonent waaw ñu ne bët ba gën a rafet ba ca des ba ca des bu wanentoo sax ba yonent bi laaloon moom du wanentooti sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ndeysaan e, doom jëb ba mu seesee Umar ibnu Abdul Aziz mu laaj ko yow a kan mu ne ko ana bnu alladi saalat ala alxaddi aynuhu fa ruddat bi kaffi lmustafa axsana raddi fa aadat kama kaanat li awali amriha fa yaa xusna ma ayn wa yaa xusna ma radd fa yaa xusna ma aynin wa yaa xusna ma radd sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moom la Buusiri nag di e, junj fii mu ne kam ab raat ak a bëri bu wéralee raaxatu tenqam wasiban aji feebar bi lamsi ci mujaradu laal rek wa atlaqat ajab ak a bëri bu booyalee raxatuhu ténqam ariban aji soxlaa mucci min ribqati lamami ci mbuumu njaamuk ndof mbuumu njaamuk ndof ana luy loolu benn jigéen doomam dafa am feebaru ndof yal yàlla musal leen ci yéen ñépp te wéral ñu mu dal musal leen ci ñàkk bët te wéral ñi mu daal barke yonent bi sallallahu alayhi naka la yonent bi laalee xale bi am feebar mental yonent bi maanaa dafa jël loxoom raay ko ci dënnu xale bi xale bi daldi eh, wëccu lu mel ni aljaru al aswad génnee ci E, gémmiñam sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallam xale bu wér ci saase tenq su laalee ku feebar mu wér nu feebaru mënta mel su fekkee ne ku ndof njàpp jàpp ba def ko jaam su ko laalee booy moom lay wax wa atlaqat ariban ak a ne rafet nu muy woyee waaye ak a rafet ku muy woy sallallahu alayhi wa sallam wa atlaqat ariban min ribqati lamami nee na wa axyati sana wa axyati sanata shahbaa dacwatuhu xatta xakat gurratan bil acusuri duumi wa axyat ak bëri bu dundalee assanata at ma ashahbaa may aji bekkoor daawatuhu ñaanam at mu bekkoor ba nit ñi amuñu dara yonent bi daal ñaan taw am xatta xakkat ba niru xurratan ci pell at mu mujj ci pell mu niru fil asuri duhumi ci jamono eh, yoo xam ne ad duhumi yeewee ñuul lañ at ma dafay mujj niroog at moo xam ne jamono joo xam ne dafa naata naata naat gàncax ga nëtëx nëtëx ba mujj mel ni dafa ñuul ngir eh, nëtëxaayam xataa xakkat xurratan bi laa asuli duhum yonentu sallallahu alayhi wa lu jiitu ñu koy yónni sax nee nañu Quraysh dañuy baaw naan abu bakk abu abu abu taalib ko naka la téenee rek asamaan si commencé taw wa abyada yustasqal xamam mu wëy ko koo xam ne kanam moom sax bu ko asamaan gisee taw wa abyada yustasqal xamam bi wajhihi thimaalul yataama ismatun lil arhamili yaluudu bihi lhulaaku min ali hashimin wa hum indahu fi naamatin waxu adili sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ci kitaabul jumaati fi saxiix yi dana wax ne anas ibnu malik dana wax ne benn waaye dafa dugg si ci jàkka ji fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xutba mu jubloog yonent bi ne ko yow yonentu alal yi halaku nañu yoon dagg nañu ñaanal yàlla mu tawal ñu mu xettali ñu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yëgati ñaari loxo mi ne yow yàlla xettali ñu allahuma axis na allahuma na anas nee na rekk niir woo xam ne agsi ti booloo ba ci digg asamaan rek mu tàqali ko taw bi ñëw nee na wallahi juróom benn fan ya ca tege gisuñu jant bi dafa taw sans arrêt ba ca ajjuma ja yonent bi di xutba waaye du gaat ca bunt booba daal di wax yow yonent alal yi ñu ngi alako xalako nañu yàqu nañu yoon yi dagg nañu ñaanal yàlla mu téye taw bi wala si ñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yëgati ñaari loxoom yu tedd ya ne allahuma xawlana wala alayna allahuma ala akami wa warabi wa butuni awdiyati wa manabiti al shajari nee taw ba arrêté ñu génn juróom fan yi la yëpp nee jant de waaye nee bi ñu génnee ci jant bi la ñuy dox kookoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom lay wax ne waaxiyat ak a bëri bu dundalee daawatuhu sanata at ashaba may aji néew ji taw ngir notuk weexuk suuf ga ngir ñàkkuk gàncax ala sawaadiha bin nabaati waaw ñaanam aka bëri bum dundalee at mu deexoon aka bëri bum xettale at mu bekkooroon xata xakkat ba niroowante moom moom at ma mu niru wanteeg xurratan am pell fil asuri ci jamonoy adduhumi yee woy naat verdure am ba mujj ñuul naka la ko defee mu ne bi aaridin hada aaridun moom tëru na ci taw bu bari ci niir jaada woo xam ne tabe na aw xeltu ba ma jort aw xelta ba nga jort al bitaaxa jamcu batxaa wala ab tax mooy xurya bihaa daf ca nekk saybun am sotteeku minal yammi bu tukkee ci géej aw saylun wala yol minal arimi ni ko yàlla tudde uh, fa arsalna alayhim saylal arimi mu ne da ngay foog ne sax uh, xur yi géej ga moo dagg rek jëm ca foo gis rek tund ak xuur yëpp ndox a nga fa yool jëm eh, aw xilta doo foog ne walla ndax aw googu bi maana ilaa la aw ñaareel gi nag mooy taxyiir la astashilan saaba aw udrikal muna ay ilaa an udrikal muna fa man qaadatil amalu illa li saabiri yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ay kéemaanam niñ ko tàmbalee woon mënee ko lim waaye boroom téere bi lim na ci yii ngir <clears throat> wone eh, ni ko yàlla meloloon lim ci yoo xam ne dafa aju ci biiram lim ci yoo xam ne dafa aju ci bitim lim ci yoo xam ne dafa aju ci ñaanam yoo xam ne dafa aju ci loxoom yoo xam ne dafa aju ci tabaarakallahu euh, environnement am sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu mel ni dangay ngay yéem yi nag mu wan leneen nag bi ma lay bëgg a waxal yile du ca dara te mooy alxuraan gi nga xam ne mooy mujizaatam gi nga xam ne mooy mujiza baqiya xaalida taalita mujiza gii des abadal abidi ndax mujiza yi mu wax la yëpp yëpp am na ay sanat yu wér waaye kum neex mu ne gisuma ko waaye alquran nag moom mi ngi fi ak nim fi nee nag tabaarakallahu loolu ci la war a ñëw ak ñun suba bi idnillahi tabaraka wa taala moom lay ubbee daanii wa wasfiya ayatun ayatin lahu zaharat zuhura naari lqiran zuhura naari qiran leylan ala alamin ayatu xaqin min arrahmani muxdathatun mawsuufatun sifata almawsuufi bilqidami ñu ngi leen di baalu aq lu ci baax tawfiqu yàlla la lu ci mel neneen ah xam ne ñu na ñu ñaan nag suñu borom tabaarakallahu ah mu boole ñu defaral ñu dégg ak topp mel na ni eh, soxna si bi muy tudd eh, rajo bi am na numéro bu nekk ci eh, annonce bi xam ne moom la ñoo dégloo rajo bi waaye numéro bi mel ni léegi changé na au lieu de 401 347 07 foowan léegi changé na defe na am na mootiwaay tabarakallah surtout ñi nga xam ne ñu ngi biir États-Unis bëgg di déglu Tidjani International Radio dañ ko mën a déglu vingt quatre heures sur vingt quatre bu ñu composé rek six cent seize cinq cent quatre vingt dix sept dix trente six one six five nine seven one zero three 0616 597 1030 ñu ngi euh, wax ne yi tamit fii ci jàkka ji dañ fi célébrer euh, juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajjuma bii ñëw ànd ak waa satanaay la nii ba weer yu tàmbalee ba léegi it ña nga ca euh, te ju burd bi it añ ak suñu E, mbokk yi ca New York zawiya ba biiznillahi tabaraka wa taala àllarba defee samedi ba ca topp e, danañ def gàmmu it ca suñu mbokk pakistani yi ca Westchester e, beneen événement it buy événement wu jàkka ji di événement wu waa Staten Island événement wu waa États-Unis d'Amérique waaye événement wu jullit yëpp muy fundraiser diine bi ñuy amal ci fin d'année bi ci euh, euh, naka la tuddati eighteen ninety euh, Forest Avenue fii ci Staten Island le samedi le trente décembre boobu nag bëgg nañu tabarakallahu ñëpp teew ci nañu yàlla yobbu ci yàlla nañu ci yàlla yóbbu ba projet yi nga xam ne Islamic Cultural Foundation of America am nañ ko fii ci biir eh, New York ci yeneen i dëkk yëpp yàlla eh, def ci sutura bu mu mat niñ ko bëggee ñuy ñaanal tamit jullit yi fu ñu mën a nekk yàlla taxawu leen te defaral leen seen waaxir defaral leen seen baatin nuyu ñëpp di ñëpp ñi ñu mujjee eh, gis yu ko mel ni sëriñ Moussa Mbaye sëriñ Mouhamad Hamdi sëriñ Kaati Mbaye ak ñi leen jiitu tabaarakallaahu ñëpp am ci ñuy gis am na ci ñuy gisul ñaan suñu boroom lépp loo xam ne soobu nañ ci suba ngoon yal na jëmmam ji tax te yal na ko sottal lépp luñ ragal yal na ñu ci yàlla boole musal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Now you can listen to our Fakir Muhammad Sahar Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com at www.muhammadsahar.com by dialing your phone at 401 347 07 841. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Wassalam. Wassalam. Wassalam. Oh, oh, oh,